Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. C'est Animation Médio SN. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Merci pour les abonnements. grand bi na nga def yaa si jàmm baax mais tey yan yan match am. waaw na de Barça de football ay Chelsea Bayern yu fay football. kii jaxal fi taal. joxoon na City victoire ak ak ak waa ak man joxoon ma ñooñu rek victoire. waaw ok incha allah daa ko jël après. booy yéen nga beseer dugal ñu xool waaye match yi kii bi City bi ak match United yi laa bëgg a xool. booy ah, am jom dóor. loolu kay xéwal saa bi kay baar na baar la ñëw des booy yow ngay jibili nii yow match nga xam ne demagul fenn nga nekk na laa yàqal keroog nga xam ne man benn bii ma ma yàqal quatre-vingt mille nga nekk di jibili si ñaari match des mais booy tey rancé dal de baar saa kii moo mën a deux raar baar moo xam naa cinq lay door ay cinq six lay door moom waaw loolu waaw ni moom de mën nañ kaa dóor sax mais booy bu àggee seen dugal bés seen waay xoolal ma sama marché fi rek ma dese xam naa day dóor sax. waaw baax na loolu amul problème waaye damay dagg de ndax fan yii yëpp sama téléphone ngay jàppee ma la siy bàyyi. sooy booy bu wax dara bàyyi dalal rek million rek ngay waxal nii après naa la jox vingt mille. cey Sénégal ak dëgër fi jàppagul sax di di may ay vingt mille. mais dalagu si de Bayern lañ mënee 1-0 mais bu garaaw sax Bayern moom wóor naa ko mun naa mu remonté. waaw béy si loo nekk yaa am jàmm bu baax temps yii amoon sax mais tey dama bëgg dama fi ñëwoon pour nga wax ma loo bëgg rek loo bëgg rek nga wax ma ko ma defal la ko. ah man kay damaa yàgg moom waaye yow yow tey woo ñëw nga ak doole di foo jëlee xaalis nga ñëw ne naan ma loo bëgg. mais yow bul xalaat bàyyi yow wax nga millionnaire moo toog nii di wax ak yow. waxal si soirée ma defal la ko waaye man sama naturel rek laa bëgg ak benn iPhone 13 Euro Pro Max xam naa nag doo ko am mais garaaw jënd ma cheveux rek yow jàkk wërsëg de xaa xamoon ne millionnaire moo toog nii di wax ak yow day garaaw garaaw lu bari te aw wax li nga bëgg rek ma defal la ko ba bëggee sax ma jënd la iPhone Pro Max waaye yow de yow sax yow foo jëlee xaalis te ma kan mosuma laa gis ngay liggéey góor oo yattoo su ma la daan ñaan cent francs sax da ngay bañ lii nga ñëw di ma tegal ay cheveux naturel loolu la may nax l'essentiel bul xalaat su ma lijjantee xaalis rek yow li nga bëgg naa ko defal la seetaan rek. et mon fils yaa ngi toog ah. mais père tooguma de damaa taxaw nga sax wóor ma lool taay damaa bëgg dépense bi kaa joxe nga bàyyi ma may joxe taay moom mooy loolu. waaye yow yow moom foo war a jëlee xaalis yaa ngi xam liggéeyoo defoo dara nangoo liggéey ñëw naan affaire dépassé. foo jëlee xaalis yow loolu jaaxal na ma de. mais père bu xaar xam nga rek ay moom millionnaire laa bàyyi maa toj dëkk bi. booy xaar naa la ba sonn yow foo nekkoon. booy yow ku bëgg xaalis nga nag tam ay vingt millions yoo wax. naa man su ma jàppee deux millions cinq cent a jox sa famille booy tiit nga de. booy yow danaa rek ay ay iPhone. 13 pro max ma yooyu yooyu dara ma si paa bi wax ko ne ko saa yi taa naa wàcc sa yow nga ñëw naa may bébé bu ñëwee sax mën naa la ko doubler 40 mille nga am ci booy xanaa bi dafa tënne ma ñu nam de saa yi sa équipe bi démb bayaat na 5 lañ ko dóor ngay dugg fii nga de lan door cinq wala moo door cinq te wax ji daa man dama koo déggul danga wax xoolaat ko bu baax waay mooy instant li ma lay wax moom leer na naañ bayaanal moom lañ door cinq zéro wala dangaa bëgg déglu leer sa ticket bi yàqu na bu nekkee xaalis ngay xaar wala woo ni affaire yàqu sama ticket bi rek lii di jàmm Sénégal bàyyi leen naar bi naar bi de mooy ni war a jàpp 2 millions nekk fi ma ay na dañ koo gën a ay yooyu gëm ma ko sax ma dugg berse ba ko fii loolu dama jaaxal sax bu naa bàyyi man kay di dépôt te du retiré naa ngeen. de dañ na nga jaar bàyyi nga ñëw si. saa bi wax loolu. man su ma ci namm tee dugg de yàlla naa am 4 appartement bi safara bi